ça va Modou naka mu namm naa la yaa ngi ci jàmm naka woo foofu dégg naa ñëw nga baa yaa ngi am jàmm bu baax a baax ah xam na indil nga ma sérice de sama sérice moom ba dina ñëw salaamaaleykum soxna Aliou ci nekk yaa ci jàmm ba naka yi tey ma yow di am sérice yow moom dañ lay jox sérice jawwara soxna si moom ci soxna si loo yàlla démb nag démb laa ñëw ko mais coono sonn moo ma jàpp yaa ngi si jàmm bu baax. Ah, coono bi moom dafa metti daa metti li mais yàlla baax na waa mais ba gis nga Fatou na la bu baax a baax. waaw soxna ji waaye coono bi de moom ça va mën nañ ko surmonter parce que li ñuy dund fële moo gën a métti quoi bi maa ngi nii Dakar quoi dafa am quelques business yu may rek après suma ma paree dem. jege ko quoi tuuti parce que namoon naa ko mais yow sa copine est ce que yaa koy dégg parce que man maa ngi koy woo nii nii nii nii ko hmm, ko ah kon baax na man de es bi moo am lu ma la bëgg a wax sax lu am important te mënuma la ko nëbbee moom da nga sama góor bu baax nga moo tax am na yoo xamante ni moom su ma la ko nëbbee duma góor. ma soxna aje waaw bu ma jaaxal bopp man maa ngi soog a ñëw nga naan maa ngi lii nu mu fa demee noonu explique ma bopp laa ilaaha illallah ah mun de dama tiit ma nu mu la ko mën a waxee sax depuis sa takk ba ba léegi Fatou dafa changé ay xale yu góor tey xale bu góor suba xale bu góor man dafa ma jaaxal man damay daw sax ins bi mu demee nii mais soxna aji yow yow li wax nii li xarit du ko doxale li nga waxe ne ba pare nga ne xarit du faatu ma man mënu mënu comprendre mais nu mu demee ne tegloo mu dara lu leer de bañ nga ko ba wax ne xarit moo tax ma wax li yow xamee nga ma faatu depuis xale ba léegi ñooy ànd comme nag su jaarul yoon dama la koy wax soo bëggee dégg dëgg faatu du jànk waaw loolu laa am si lu ma lay wax yow lan nga nekk di wax ni waaye bàyyi li ngay wax waaye man dinaa takk soxna jóge Italie nii jël sama xaalis presque lu tolloog cinq millions def ko ci nga ay du jàng man dinaa takk koo xam ne dem na bu dikk bu ma sonal waaye wax ma lu mu mën a dégg. eh yow laa bëgg nga may ma jàmm yow ban intérêt laa am di sosal faatu ban intérêt rek laa am di sosal faatu sànq nii nag la fi jóge di dem si clinique. pour defar ndaw soo ma weddee léegi léegi léegi su la amee su la amee important nga jóge fa nga nekk ñëw fi léegi man mën naa laa yóbbu ba ca clinique ba aw ma benn intérêt pour ba pour di ko sosal xam nga nag lu tax mënoo koo dégg dafa fay téléphone am ndax fa mu nekk bëggul nga koy woo di xam fa mu nekk moo tax nag mu fay téléphone am soo ma gëmee baax na soo ma gëmul tamit baax na soo bëggee nag lu la leer ñëwal fii léegi ma yóbbu la. non non Adji yow. bàyyi li nga def kii ma def li ak li ma financé ci moom yëpp yaakaar xale bu jigéen bu baax laa takk mu may def li indi monté ji ay ndaw ak lu nekk mu ci dugg non je ne peux pas comprendre ça maa ngi ñëw mbuur léegi léegi léegi li ma doon def yëpp yóbbante jàmbur yëpp dama koy arrêté ñëw gérer sama cas boobu j'espère que aussi li ngay wax bu baax dëgg la parce que munu mënuma bàyyiloo sama yitte yëpp may ñëw te li ma li nga may wax li dara amu ci te bu ma ñëwee maa ngi ñëw léegi su ma ñëwee may yóbbu ba fi mu nekk ma gérer ak parce que man du ma nekk di réew ma di liggéey sama xaalis ñëw di ko pasar pasare ci koo xam ne dafa foo day foowee ndawam yëpp loolu du ma ko j'espère bien que ne yow li nga may wax teg nga ko fu wóor